asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar te leen bëggee yow ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ ko doon defee rek à chaque fois tey nag ñu ñëw fii si Colobane bale mën nañu wax ni Fass ñëw seet si koo xamante ni faas la Colobane Fass ñëw seet koo xamante ni Fass la mu nekk koo xamante ni nag kenn du ko présenté kenn amaana nag miin ngeen ko muy ki nga xamante ne muy ah, Moussa Gningue bu Fass wala le sorcier de Fass tey nag moom lañ toogal. fa yéene waxtaan ak moom làmb ndax gis nañu làmb instant bi bari na coow gis nañu léegi mbër yi fi ñu toll gis nañ tamit instant bi écurie bi mu nekkoon ba léegi ndax barki Dembo Ndiaye wala mun nañooy wax ni semaine bi yëpp ki nga xamante ne moom mooy le troisième tigre de Fass mu nekkoon ki moom mooy patron am la euh, kii di Moussa Gningue gis nañ euh, combat ak Balla Gaye buru yi ci am yëpp fas yéene waxtaan ak moom ak instant bi làmb ji côté mystique bi yooyu yëpp comme euh, mi ngi nii nag dañuy waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb ñu bàyyi ko mu nuyoo Père Moussa maa ngi lay nuyu. leen euh, sargal di kontante si ñëw bi ngeen ma ñëw fekk ma fii si sama kër waaw loolu laa ci mën a wax daal jërëjëf. nuyoo bi am na solo dañ koy dañuy waxtaan nag ak moom ndax nee naa leen jot bariwul mais tey moom wax dëgg yàlla daf ñu ko accordé ndax suñ papa suñ lépp la mais père tey kenn du fi nekk tey naan kan mooy Moussa Gningue kenn du fi nekk di ko wax mais nag pour ñi nga xam te ne ñoom lay ñoom ñoo lay seetaan sur wasaare lamb dañuy ñuy fàttali tuuti sa parcours. waaw sama parcours mën euh, Fass laa juddoo fa laa donc falaane ci biir loolu ma ànd ak euh, Mbaye Guèye ànd ak Tubaabu Joor ànd ak Mor Ngeer ànd ak Birahim Ndiaye ànd ak Papa Guèye ànd ak Moustapha Guèye ànd ak Gris Bordeaux ànd ak Papa Sow ñoom ñëpp ma ma ma ànd ak ñoom ba bàyyi ba bàyyi kon donc su ma leen di wax daal foofu loolu foofu mooy nekk sama sama jaar-jaar daal waaw. wax nga ko léegi macha allah ñi nga lim ñëpp tey dégg nañ daali am na ñoo xamante ni ñi ngi nekk ci làmb kon ñi nga lim mais euh, tey euh, Moussa Gningue ñu bari dañ laa xamee écurie Fass mais avant écurie Fass Moussa ci lan la nekkoon ba intégré écurie waaw li ma nekkoon mooy man footballkat laa woon maa ngi doon football GIA jóge fa football euh, euh, euh, équipe bu ñuy wax Starlight Gambie ba pare ñëw nag au Jaraaf donc loolu mooy sama parcours man en tant que sportif mais li ma dugal ci ci làmb ci boobu ñun kër Mbaye Guèye lañ doon lañ doon foye man ak rakkam bu ñuy wax ndongo ak ñoom Carlos ak ñoom Ndiir ñoom Naïs ñoom ñëpp léegi bi Mbaye Guèye commencé bëre ñu jël asiko yi di dem di ko supporter ji ñu dem a dem a dem a dem ba jëmmi jamono nag euh, mu amoon ay mag yu fi nekkoon ñoo xam ne dañ leen xamoon ñu siiw trop ñooñu jékki-jékki rekk bàyyi rek nag nag ñu ñëw jël seen relève ne léegi nag comme léegi loolu la te ñooñu dëkkuñu fi woon sax kon donc léegi ñun ñi dëkk Fass léegi ñooy yo ñooy ñooy yore affaire bi si laa ko commencé nag ñoom yore mbay Guèye yore moor Nguer yore Tuwaabu Joor ñoo ñëpp si si leen yore daal waaw. wax nga ko léegi ñi nga lim ñëpp Père Mbaye Guèye ñoom Mor Nguer ñoom Tuwaabu Joor euh, ñooñu da nga leen yor comme ci naka. da nga leen yor côté mystiquement comme ci naka nga leen yor ñoom ñëpp ñooñu noonu nan nga leen mënoon a boole. waa nu ma leen yore mooy ku doon bëre daf mooy oo mu utaliku sëriñ sëriñ nga xam ne ci biir loolu dama doon demal mbay Guèye dama demal loon moor Ngeer dama doon demal Tuwaabu Joor Tuwaabu Joor moom combat yi nga xam ne ngemboon na ko faas yëpp loolu maa ko maa maa ko yóbbu sauf nag contre contre mànga parce que contre manga dañu demoon seen dëkk euh, teen tubaab ne foofu la ñuy ngembo ma ne man ma ne ko man man du dem donc looloo tax <laughs> looloo tax moom bokk bokk ci loolu mais ñooñu daal ñoo ñëpp daal maa ànd ak ñoom maa leen doon ngemba maa nekkoon seen bras droit. Hmm. mais si côté tubaabu joor bi euh, nga ni dafa yaa ko doon ngemb après mu dem seen dëkk combat boobu kon nan la demee da koo da koo ñàkk wala combat boobu da koo gañe ah combat boobu nag daf ko daf ko daf ko daf ko ñàkk mais après nag ñu jubale ñu encore ma continuer ma continuer di ko di ko kii man daal yóbbu naa ko lu mat juróom-ñaari euh, séance yoo xam ne ñoom ñëpp daf leen daf leen daan juróom-ñaari yoo xam ne daal tubaab ñor daan na leen su ko génnaat faas nag ber écurie boppam Médina mhm. waaw nga dese ki nga xam te ne moom mooy per Mbaye Gueye parce que ñu bari liñ la gën a xamee mooy Fass sa relation ak Père Mbaye nan la demoon donte wax nga ne danga doon ànd ak rakkam mais relation ba confiance am ci ba nga dem ba ñëpp ràññee la ci écurie Fass amatoo benn xaj ak seen mais sa relation ak Père Mbaye nan la demee woon. waaw Mbaye Gueye suñu mag la woon suñu xarit la woon ñun boobu duggaguma ci làmb ji wax naa la dama doon football te ci football bi moom daf ma daan jàpp jàppale. bu rëy may football di football di am ay ndam di am ay football ay ndam mais soo amee combat rek man dootuma demati entraînement football dootuma demati fenn te boobu titulaire laa woon ci équipe bi nga xam ne foofu laa doon football donc loolu gars yi di ma wax ne bàyyi làmb ji bàyyi làmb ji bàyyi làmb ji mais man dégguma loolu moom soo amee bëri rek man dama ci dama ci dama ciy bokk nga xam ne ñun këram lañu doon nekk suba ba ngoon foofu la ñu nekk ñooy ànd dem entraînement ñooy ànd dem entraînement boxe ñooy def euh, entraînement physique yooyu yëpp ñun ñoo ñoo doon ànd ak ak ak ñi mën limal ñi nga xamee ne ñoo doon sama morom te dëkk Fass ñun ñëpp ñoo doon groupe nga xam ne léegi su waree bëree dañ daan garder euh, euh, kii bi nu mu tudd kar koñ bi nga xam ne duñ nangu kenn jaar fa toujours ci biir loolu nag ci loolu la amee confiance ci man ba dénk ma li nga xam ne mooy affaire mystique bi daal waaw. mais moom nga ko wutal mystique. daan na. daan nga wutal mbéy gay mystique. waaw mbéy gay laa laa jëkk wutal mistik mm. waaw di dem di ñëw di dem di ñëw di ñëw di ñëw après nag bi nga xamee ne dem na ba nga xam ne mu ngi commencé jeexal ma jël Mor Ngeer jël tubaabu joor gaa yëpp nag daje ci man nga xam ne léegi kuy bëri rek da ma ñëw fekk sama kër na ma nangam laa yore de nangam ngi nii nangam a nii def ci nangamak nangamak nangam ak ba nga xam ne loolu moo doon tax ma doon fanaan ci àll yeeg def def eh, dem fi fu ne looloo tax daal tax daal waaw. nga ànd ak moom wala début carrière waaw maa ngi ànd ak moom nag ci presque fin de carrière parce que boobu bi bi bi grand yooyu bàyyee eh, bàyyi bàyyi. la ñu ñëw nag ñun ci ci ci ci jël relève bi jël relève bi nag euh, yóbbu ko fa sori parce que ñoom li ñu mënul woon ñun moom lañ mun parce que ci biir loolu ñun dëkk bu nekk lañ doon dem si la mbay géey sax gën a amee ngemb que bi mu bi mu bi mu kiiyee bi mu nekkee ci digg ndënd yi kon donc ci biir loolu looloo tax nag ci biir loolu ñun ñu ñu yore ñu yore loolu nag li nga xam ne sama morom yi rek ñoo ko doon yore ñu ñu maaseel ak ñu doon àndal football ñoom ñëpp ñoo bàyyi li ñu doon def ñëw di ànd ak Mbaye Guèye waaw. première Tigre de Fass ba muy génn ba muy génn li nga xamante ni moom mooy joxe lee ngay loolu noonu nan la demee woon. waaw premier Tigre de bi mu ñëwee moom dafa dem ba xam ne ne eh, jeexal na rek mu mu mu mu joxe lenge yi joxe jox ko jox ko moor ngeer joxu ko tubaabu joor mais rakkam la ko rakkam la ko jox muy Moustapha Guèye ci biir loolu nag Moustapha Guèye biñ ko introniser euh, euh, euh, tigre tigre de Fass moom nag mu mu mu mérité ko ñoo ànd ak moom commencement bëri ma Moustapha Guèye ba fin donc ci biir loolu noonu la ko noonu lañ ko introniser jox ko euh, deuxième deuxième tigre de Fass. Mhm. mais avant ñuy jox euh, Tafa Gueye euh, ñu koy nuy walla au passage Père Mbaye Gueye tamit ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax mu jug ak jàmm ak salaam mais avant Tafa Gueye ñu koy jox leen ngay mais Moussa ñi ngi dafa mel ni am na ku la ko dee woon ne leen carrément dina am kuy ñëw. loolu nan la demee woon sëriñ moo la ko waxoon wala kan moo la ko waxoon ndax yow xamoon nga ci dara. waaw dama lay wax ne te eh, dama mus a ànd ak Mbaye Gueye ñu dem Guinée Bissau ñu dëkk dem dëkk bu ñu wax Kuntubu bañ demee bañuy dem ñu jaar ci yoon bi jaañ ci suñu benn grand bu ñuy wax ah, lamin Top bañ fa jaaree wax ko suñu yoon. mun nañu xaaral dina am ci benn benn benn benn gumbo dafa gumba ba pare gaana la gaana la woon ñu dem seeti ko mu seetal ñu liñ doon ut liñ doon dox mais boobu doxuñu affaire Moustapha Guèye Mbaye Guèye ñu ñu sànni euh, euh, kii yi nu mu seet yi rek waaw rek mu ne mu ne mu ne mu ne am nga benn rakk bu góor boo xam ne tànk yi dafa dëng benn jigéen rek la mag si seen si si si sa sa njuru yaay kooku dina la ëpp tur rek Mbaye Gueye déew na <laughs> oh, oh loolu eh, daal loolu loolu daal kenn suñu kër kenn duñu ma fa ëpp tur mu ne ko waaw mais soo leen ko defalee lii ma wax nii kenn mënul tere ne àddina dina ko dégg ma ne ko la ma ne ko man ma ne ko lan la mu ne ma da di jënd béy ak perkaal ak ak ak ak ak ak lu mat fukki pilote woñ génne ko génne ko sarax ñu fanaan foofu ma dem jëndi loolu indi ñu def ko boobu man xam naa ne moom Moustapha Gueye la parce que Moustapha Gueye rek moo doon moom ma doon topp di fanaan ak man di nga xam ne euh, lu may dem moom laa koy yónni donc moo doon sama sama complice bi ñu waxee loolu rek xam naa ne Moustapha Gueye la moo tax ma dem génne ji ko waaw ma tax ma génne ji ko ah ñu continuer dem mais ci biir biir biir bi ñëwee nag ba Moustapha nag euh, commencé bëre ba mu ne ma kaay kat kii yow yaa ko war a yore ma ne ko ah waay man bu ma yore te kii dara bàyyi ma dama dama sonn dama sonn dama son mais mu ne ma daal yow yaa koy yore ma yóbbu ko mu gañe ma yóbbuwaat ko mu ma yóbbuwaat ko mu gañe yóbbu naa ko fukki yoon mu daan ku nekk ni mu la daanee bokkul ak ni mu bëreeg yow waaw moom Moustapha Gueye ah, père gis nañ ni wax nga ko sànq sa complice la woon sa xarit la ndax tey koo dugal néegu góor kooku moom sa lépp la mën ngaa ñëwaat sa relation ak Tafa waa waaw sama relation Moustapha Gueye sama booy la woon ñoo fanaan ñoo nekkoon mooy su daan jàng dafay jaar ci man soo ko dem école ma jox ko juróomi dërëm mbaa ma jox ko fukki dërëm kon donc ci biir loolu mooy ba bi muy nekk njullitam maa ko yóbboon man ak ipungaar yi kon donc si sama digganteeg moom dafa dafa dafa dafa yaatu dafa dafa sincère ni ma ko buggee noonu la ma noonu noonu la ma buggee moo tax yemale ma ko woon nag kenn ci li ci li nga xam ne moom laa ko util utile wala moom laa ko doon defal loolu yëpp dafa doon nekkaloo conviction boo xam ne bu ma bu ma animé la woon pour ma koy ma ma ma koy utali yenn yi wala pour ma koy defal yenn yi daal waaw. Mhm. ñu jox la ko nga tette ko. ba mu commencé dégg daale wala ba mu dégg daale hmm. mais ay combat am nan la daan demee ci yow parce que koo xamante ni yow yaa ko dépp xale yaa ko yar say comba comba ay Tapha Gueye nan daan mel ci Moussa Gningue waaw combat Moussa Gueye ñu parce que man nag yàlla def na moom sax xam na loolu man dama dama dama dama tey dama tey ci lépp lu may def lépp lu may def rek xel laa koy defee moo tax ci biir loolu suñu suñu ànd neex mais nag balaa mu daan bëre dafa daan dañ daan déeyoo ci nekk mu ne ma kat mun naa bëreeg diw maa ko mën wala mun naa bëreeg diw ma dinaa ko daan mais dinaa sonn ci loolu lañ ci complicité boobu nag la ñu àndoon di ko di ci ànd di ci ànd di ci ànd di ci ànd ba nga xam ne daal euh, ba mu ba mu bàyyi bëri daal waaw Euh, waa ndax wax nga ko léegi yéen ñaar amoon ngeen benn complicité su bëggee mbër sax yow lay waxal mais tey su daan su waxee mbër bi laa bëgg a bëreel Moussa Gningue day jug ci mbër boobu préparé ko pare combat bi soo ko taxawal. non parce que da moom su su mu musee wax ne maamun diw rek dama koy wax dama bëri jéeg moom moom dafa daan mel ni ku daan gis li nga xam ne moom lay moom ñoom la war a bëreel donc ci biir loolu dama ko doon bàyyi su ñëwee rek ne ma maamun diw. ma ne ma ne leen mane nañ nañ nañ jox nañ nañ jox ko nañ jox combat bi mais am nañ ci ñoo xam ne nag waxu leen ne maa leen mën mais te daan na leen mais tam ci biir loolu mais daal ku ma a wax ne daal moo la mën kooku jaa doo doo doo doo taxaw dafa lay daan. dafa lay daan waaw waaw. wax nga ko écurie face daf la mës a jaral ci kër àdduna wax nga ko wax nga ko léegi ci premier Tigre de ñu ñun euh, deuxième Tigre de Fass moom lañ nekk muy Tafa Gueye euh, Père Moussa Gningue est-ce que daan nga génn ci dëkk bi ndax gis nañ ni mystique boo ci nekkee di nga jànkoon di nga di nga am ci kii yu bari yoo jànkoonteel euh, ban combat nga la mës a bëree combat boo xam te nga jàkkoonteel ay difficulté soit mën naa bañ a nekk ci tafaagay mais ci ban combat nga xam te ni combat bi tey dëgër na nga jànkoonteel ay kii wala nga génn Sénégal lépp pour musique parce que yow moom per moom <laughs> sorcier bi du hasard. <laughs> waaw dëgg la diggante Moustapha Guèye ak Alioune Diouf def nañ ci loo xam ne dootuñ ko gaaw a def ci làmb parce que boobu moo doon combat bi nga xamee ne dañu leen tëkkale ñoom ñaar. di tëkkale Moustapha Guèye ak alin Diouf parce que Alioune Diouf dafa jóge kawlax boobu Moustapha Guèye bëreegul mu daan magu Moustapha Guèye yi daan Papa Guèye daan Ndiouga daan Alsaan Jaxate Moustapha Guèye ñëw tënk ko mu daan ko mbapat ñu ñëwaat fekkaat ko mbapatu Kolobaan fekk boobu bii bu njëkk bi mbapatu tubaabu joor la ñu fekkaat ko mbapatu Kolobaan mu daanaat ñi mu daanoon sauf Moustapha Gueye keroog man maa yóbbu mu Gueye maa toog ci cumukaayu mu Gueye jox ko sër bi mu mu mu mu euh, ngemboo ko pour bëreeg Alioune Diouf boobu Alioune Diouf ñu ngi ko indil ay saaku yoo xam ne yëpp ay saafara la mais ñu ñëw rek ñu toog mun na ma mun na ma peer toogal man ko man kañ maay toog parce que kii moom ñooy toog yàlla def ñu ñëw rek ñu ñëw Moustapha Gueye tënk ko rek Alioune Diouf ne ko dama lay rey maa la mën ñu ñëw gars yi nekkoon foofu boole leen lu mat cinquante mille francs nekku daan da ngay am trent cinq mille ki ñu daan mu am quinze mille après gars yi yu amateurs yi yuuxoo ne eh nañ na am daan daan gàddu rek ñu nekkoon nag léegi nañ ko def daan gàddu waaw ma ñëw ne ko Moustapha Gueye nooy bëre mu ne ma damay kii comme day songu damay siggi taxaw su ma siggee dina dina dina jaar sama tànk su jaaree sama tànk si laa koy jàpp si laa koy lippi mu koy lippi mooy bëre joolaa yooyu nga xam ne moom la ñuy jàpp sa ngemb rek bittan ñi la ñu ne léew léew léew léew rek Moussa Wagué siggi siggi siggi dàq dàq Aliou Diouf Aliou Diouf euh, euh, arrière arrière arrière ko sirip Moussa Wagué téye ko jàll jàllale ko benn yoon jàllale ko ñaar yoon ni mu ko daanee arène noonu la ko daanee eh, ci mboppat mi waaw boobu nekk na combat boo xam ne bi ma gën a euh, neex ci combat yi bi gën a jafe ci combat yi parce que boobu séeréer si ñoom ñëpp dañoo regroupé woon ñoom màngaak Robert rek ñoom ñëpp parce que ko période boobu ñoom ñëpp a ñëw ci làmb ji waaw ñaareel ba am na ci beneen boo xam ne neex na ma lool. muy Gris Bordeaux ak Bombardier boobu tam neex na ma lool lool lool lool lool neex na ma ndax combat ba scénario bi ma daj ci euh, Alioune Diouf moom laa dajaat ci Bombardier pour Gris daan ko waaw. ban euh, kan moo ci doon bëre nga jënd benn butéel saafara boo xam ne un million et quelque la woon ban la. ak Bombardier la woon waaw boobu dafa am suñu benn sëriñ. ñuy wax Yuusuf soxo euh, fa ñëw wax ma ne di ngeen bëreeg Bombardier ma ne ko aha mu ne ma waaw mu ne ma waaye su ma leen waxee li ma leen wax nii kenn mun leen tee doo leen ko daan ma ne ko aha mu ne waaw man ko kon nag su combat bi taxawee léegi man ci li ñu may jox naa la ci jox un million mu ne man tam maa ngi defar benn saafara boo xam ne tey jii combat boobu rek laa la koy jox dootuma la ko joxati ah c'est ko jox boobu maa ngi àndoon ak ku ñuy wax euh, Ismaïla ak euh, ku ñuy wax Yaa Moussa ñooñu biñ ko koy bi ma ko koy jox si boobu minuit et demi jot na matin lañ dem këram fekk ko fa waaw boobu moom mu ngi dëkkoon parcelle mais suñu sëriñ la woon boo xam ne bu baax la woon tam boo xam ne daf ñu daan dimbale mais du du du combat yëpp la ñu daan ngemb daal waaw du combat yëpp la ñu ngemb mais dañ daan ngemb bi bàyyi bële bàyyi ngemb bi bàyyi bële wala mu bàyyi bële bàyyi bàyyi lu mat ñu bëriwaat nangam ak nangam mu soog ñu ngembaat waaw daawul constamment daal daawul daaw daaw daaw daaw daaw ñu ngemb loolu moo tax affaire am seeroon nag affaire seer mais affaire am dafa amoon efficacité saa ko musee employé rek am nañ ci ndam waaw. Tapha ak Mbaye Gueye kan moo ci dàqoon a bëri. waaw waaw Moustapha moo dàq bëri Mbaye Guèye Mbaye Guèye moo ëppoon témérité ah euh, fugg ci biir làmb ji mais Moustapha Guèye moom calcul la daan bëree ak xel ak mën a bëri waaw loolu tax parce que Moustapha Guèye di combat yi mu njëkk bari yëpp ku nekk daf la daan façon boo xam ne bokkul ak ni mu daanee keneen ki waaw. nga ngemb Moustapha Guèye ba mu bàyyi làmb nekku roi des arènes loolu am na lu des si waaw jour boobu nag jooy naa parce que ci biir loolu waaw parce que maag yaayam dañu waxoon ne euh, mun na ma Moussa est-ce que di nga ànd ak Moustapha Gueye ba mu bàyyi bëre man ne ko waa dinaa ànd ak Moustapha Gueye ba mu bàyyi bëre waaw looloo ñëwaat loolu loolu répercuté waat ci jour boobu nga xam ne euh, Moustapha yi bëri na ba ñu xam ne ñu ne ko nag fii ngay yem waaw jour boobu jooy naa nag waaw. waaw waaw non parce que Moussa nekk na roi des sax parce que ci parce que ci biir loolu parce que boobu Manga bàyyi na mu daan Ibou Ndafa daan Alioune Diouf boobu kenn desetu fii boobu kenn desetu fii boobu euh, daan na ñëpp daan na séeréer si yëpp daan na waalo waalo yëpp kon kenn desetu kenn desetu si lool loolu tax parce que boobu roi des bi euh, euh, Euh, maa nga ko yorwal maa nga bàyyi na su bàyyee nag léegi Moustapha Gueye daan séeréer yëpp daan daan daan daan waalo waalo yëpp daan mbër wolof yëpp kon léegi moom moo fa nekkoon moom moo fa moom moo ci desoon moo ci desoon parce que léegi roi des arènes bi gars yi koy bëre nii léegi loolu amul ah. Uh-huh. parce que ci biir loolu euh, euh, président waa fédération dañu annulé woon roi des arènes mais ba léegi gars yaa ngi koy continuer gars yaa ngi koy continuer kon Yékini nekkoon roi parce que euh, dama lay wax ne la Alioune Sarr moo ko supprimer woon bi Manga bàyyee ah kon donc léegi ku ci nekk tam di nga wax ne maay roi des arènes parce que yaa fi des yaa daan ñeneen ñi ah, mais du tiitre boo xam ne dañ ko tegoon en jeu di ko joxe mosuloo gis ku à part ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu décerner titre boobu joxe ko waa CNG ñëw def def li ñuy war a def nga nekk ko déedéet. ah. est ko indiwaat. war nañ ko indiwaat mais nag li koy li li li koy indiwaat mooy dañuy boole ñeenti mbër yi fi mën ñeenti mbër yi fi ñëm boole leen seen biir ku génn nag soog ñu ne la yaay roi des arènes léegi nag ku la neex nga bëreel nag léegi ku la si daan rek nekk roi des arènes. waaw ñeenti mbër ñoo xam naa ne Modou loo ci la bokk. Balla ci la bokk. Euh, euh, kii nu mu tëddee ñaar ñooñu daal laa la la la laa ci mën a wax parce que ñeneen ñi tam waaw ñaar waaw maa ñoom ñoom ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom laalim ah. parce que am na ci ñoo xam ne ñoom du ñu bëreeg ñoom du ñu bëreeg ñoom waaw mais ah, ama seen léegi da day retraité léegi ah, day day day jël ah boo day retraité un an ko dese waaw tafa waaw tafatin à la rigueur mun na cee mun mun na cee bokk Ama Baldé mun na cee bokk kon mun na ne mu nekk ñeenti ñi rek. Ah. waaw. <laughs> pour yooyu ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV tey ñu dalal ko ah, mooy suñu papa ki nga xam te euh, Moussa Gningue le sorcier de Fass dégg ngeen li mu wax ci li nga xam te ne moom mooy première tigre de Fass mooy suñu papa Mbaye Guèye deuxième tigre de Fass moom mooy ah, père mais per kan mooy troisième tigre de Fass. waaw troisième tigre de Fass bi Gris Bordeaux la. Gris mu neex moom la mu naqari moom la parce que ñi mu bëreel ñeneen ñi mënuñoo bëreek ñoom te comme daan na ci ay nit donc moom lañ introniser mooy troisième tigre de Fass waaw. ba mu nekkee troisième tigre de Fass euh, Père ñi ngi mu ngi fa woon euh, ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux euh, ñu koy nuyuwaale au passage. mu nekk ko xam te ne seen relation relation bu ne am na fi ah yàgg Tafa Gueye nekk na relation mais sa relation ak Gris Bordeaux nan la demee woon. waa Gris sama doom la rek ni ma bëggee woon Moustapha Gueye noonu laa bëggee Gris waaw noonu laa noonu laa noonu laa bëggee woon noonu laa bëggee woon Gris parce que maa ngi ko jëkk a fekk euh, Abdou juuf daan ko waaw daan ko am na beneen mbër bu ko daanaat ma dem seen kër fekk mu tëdd ci benn néeg ba ma ñëwee laaj ko yaayam ne ma mu ngi si biir ma ñëw fëgg ko mu ubbeeku mu ubbi mu ne ko lan la mu ma dara sama yaram mooy metti daal ma ne ko eh xam naa liñ la daan rek waaw ma ne ko léegi jógal ñu dem entraînement mu ne ma dama sonn ma ne ko ñoo jógal ñu dem entraînement ñu jóg ñu dem entraînement ma ne ko dinaa indi lu loo xam ne daal dama la koy jox nga sangoo ko fekk dem moo fen de si suufu euh, entraînement bi laa jël rek def ko ci ci mbuus jox ko ko mu jox ko ko mu sangoo ko ma ne ko naa la def mbër waaw ah, ci loolu lañ ci maag moom ci loolu lañ commencé commencé daal mhm. waaw. naa la def mbër boobu dañ la koo deewee woon kon bañ na la euh, euh, Mbaye euh, Tafa Gueye moom mooy ñëw ñu jox ko Lengay wala parce que tamit père affaire yi dafa coïncider wu. fin carrière u Mbaye nga ànd ak moom Tafa Gueye nga ànd ak moom macha allah jigéen woo ko. ñu yëkkatiwaat Gris Bordeaux nga xamante ni oh, daan dem sax entraitement ñu koy dàq mhm. nga ko daan gis loolu mën nga see ñëwaat. waaw waaw waaw waaw waaw loolu am na ci loo xam ne euh, man euh, da daan da daan dañ daan entraîné moom ñu teg ko fële man maa ñëw na leen eh bàyyi leen ko mu entraîné organiser benn tournoi boo xam ne keroog ñun ñëpp ñoo fa nekkoon mais ku mu ku mu war a dajal si tournoi bi rek dama lay jox junni pour nga bàyyi mu daan la dama lay bàyyi jox la junni pour nga bàyyi mu daan mu dem ba jël euh, jël jël tournoi bi ñëpp bàyyi ko mu daan leen waaw mu tëb nag yuuxu ñu fecc fecc fecc fecc fecc fecc ci loolu la commencé nag léegi xelam di daal xelam di ñëw ma koy yóbbu ci ñu koy sang di yóbbu entraînement di ko defal lépp daal waaw moom sama sama sama doom la woon daal sama doom la woon waaw waaw sama doom la woon uh-huh. nga fekk ko mu bëre daanu bëre daanuwaat xam nga mu mbër bu teglee ñaari defet day xaw metti ci côté am sax dama lay wax ne la keroog ba ma koy yóbbu ba ma koy jëkk yóbbu waa Fass kenn ñëwul kenn ñëwul boom ko am ak euh, kii jonn kenn ñëwul kenn ñëw góobu ñu ko ma kii naa ko def mbër boobu boobu xam nga euh, loo gis rek euh, volonté la volonté la maak euh, sama ñetti xarit ak benn magam ñun ñoo ko yóbbu làmb ja moom bi ko yóbbu maa ko maa ko takkal téere yeeg lépp mu dem yenu yenu yenu mbay mbay mbay mbay mbay jonn ba ci kaw dóor si suuf muy benn ñu ñëwaat indi kii nunu te te Xaadim Njaay numéro 2 mu yenu ba ci kaw dóor si suuf ñu indi Antoine Bakhoum gars yi ne nag Antoine Bakhoum day rey gisi Bordeaux man leen waa nekk leen ba mu rey ko nekk leen ba mu rey ko ba ñëwee Gris ay seconde la ko daan si la commencé nag daan ñeneen ñi daan ñeneen ñi ba ba ba ba ba ba fi ma yem daal. solo nga nekk ci équipe kenn gëmu la hmm. yow rek nga gëm ko di ànd ak moom. mu dem ba découragé yàlla boole boole moom ngay dugg fu nekk euh, waa Fass ci ban combat lañ ko commencé gëm xam ne kii léegi kii nag comme que dafa doon bëree ñoom gëmuñu ko ñëwuñu. waaw contre contre contre Mbaye Jonn ñëwuñu contre euh, Khadim Ndiaye numéro 2 ñëwuñu contre contre contre euh, kii nu mu tuddati Antoine Bakhoum la lu mat ñeenti ñëw. te combat boobu combat bu daas la woon bu daas daas daas combat yi ma gën a neex ci yi nga xam ne moom laa dund ci làmb ji loolu boobu ci la bokk parce que boobu ci biir loolu dañu wax ne Antoine moo ëpp sëriñ ci euh, Yékini sax mi mu nekk da daan jël ay ay ay nag ay làmbu séeréer yooyu yëpp waaye ci biir loolu mu am kenn koo xam ne dafa ne yaayam yow li nga bàyyi Moussa ñu nga di def loolu baaxul Moussa Gningue nga ngi jël sa doom di ko booleeg ki nga xam ne làmb ji yëpp dañ ko ragal mu koy booleek moom soo moytu kooku da koy rey ma ñëw fekk yaay di jooy ma ne ko ah, mais lan la looy jooy mu ne dara nëbbu nëbbu nëbbu ma loolu nëbbu ma loolu ma ne ko waaye mais looy jooy yow tam mu ne dara du dara ñu continuer di dem di dem di dem loolu mu ngi ma ko waxee ba làmb ji tase biñ ne gëri daan waa ji si la ma nekk nettali la nettali nag ne dañ ko waxoon ne ko musaa ji ngaa ngi booleeg sa doom kenn koo xam ne moo mën ci làmb kooku da koy rey waaw waaw ci la ci la bokkoon ci la bokkoon ci la bokkoon waaye nag am na ci yoo xam ne rek euh, yàlla daal mooy mooy mooy mooy may daal waaw waaw te xamoon naa ne euh, jig naa Gris Bordeaux jig boo xam ne su ma ko joxee suuf sax su ko demee dafay dafay dafay daan